na وكونه للدفل والجلب مصليا على بشير يهب لي المنى وبعداية يذهب محمد من في هداه أرهب وفي امتدائه أتاني رهب دعوت ربي به وأطلب منه بي سعادة لا تسلب دعوت ربي به وأطلب منه بي سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق مناي بالتوفيق والتصديق بجاهه جبلي بالتوفيق في كل شيء وتكن رفيقي وجيبي لما ينير سوقي وربي بكل ذي فسوقي أجد به عناية بالتفريق واسلك به بأنفع الطريق كفيتني به أذى البكريق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 بك الذي حصل لي ومن أمر ليرفع البس انتقام بعمر بك الذي حصل لي ومن أمر ليرفع البس انتقام بعمر عثمان عني حطبت الذنب يا رحمن بجاه من سماده عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددني شيئا به الجنان تكون لي ويسكت الجنان عزبت كل ما به العصيان يجي بخير إنك الديان نفيت ضري ورد يا رحمن عن الذي سماته عثمان نفيت ضري ورد يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي علي من ربي بالمخفي وسر دارك إلى علي لجب علم نافع سميع وعمل وادب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن ذراعي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل حرف من هذا النظم بشارات لا تنقطع أبدا آمين يا رب العالمين هو الفلك المشحون المصنوع من الذكر المصون مقدمات المنى والسول في أخذ أجر الله تعالى والرسول مغالق النيران ومفاتح الجنان بسم الله الرحمن الرحيم قال الخديم العبد وهو أحمد لا زال عند ذي الجمال يحمد قال الخديم العبد وهو أحمد لا زال عند ذي الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافع الرحيم ذي الأزمان الحمد لله الذي قد جعل ذا النظم سعيا خالصا فانجعلا أحمده سبحانه وأشكره وبلساني وفؤادي أذكره أشكر رب العالمين شكرا وقد كفى كل العدا والمكرا أخلد الشكر له والحمدا وخطئي عني مها والعمدا وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد الحبيب وآله وصحبه الرجال من قاد للبشر بلا مجال وبعد فالغرض وجه الله من لسواي ساق كل لاه نويت شكره تعالى برجز وغيره ولي وعده نجز سماته مفاتح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو إنه مقدمات السول في أخذ أجر الله والرسول أو إنه مغالق النيران في شكر معبود له الداران والله أسأل بوجهه الكريم كون النظام ذا ثوابا لا يريم وأسأل الله بحرمة النبي عليه صلى بسلام مطلبي كون النظام ذا لديه أكبرا غدا وكونه سرورا كبرا وكونه فرحة أهل الجنة وكونه لي للجنان جنة وأن يكون فرحة للحور العير جنة عن المدحور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي ذي البقاء والقدم هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي ذي البقاء والقدم وما عند الله خير وأبقى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 وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة مرارا تعظيما وإجلالا لك وخوفا منك وخشية لك واتقاء لسخطك وغضبك وابتغاء لمرضاتك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كل يوم وكل شهر خليلا وحبيبا لي في الدنيا والآخرة شاهدا لي للتوبة النصوح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واجعل كل ما كتبته قبل هذا اليوم عبادة مقبولة زكية لديك بفضلك وجودك وكرمك كما هو ظني بك يا أكرم واجعل كل ما يصدر من قلبي وقلمي وجوارحي من هذا اليوم إلى يوم لقائك أكبر رضا عندك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم واعصمني من كل ما يسوءني أبدا واجمع يا جامع يا مغني بيني وبينك وهب لي كل ما يسرني أبدا مع كونك لي راضيا عني في العصمة والجمع والهبة آمين يا رب العالمين وأغنني بك عن الأرباب وبه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الأسباب يا مغني في الدنيا والآخرة اللهم إني اتخذتك ربا ووليا ونصيرا أبدا وسيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا ووسيلة إليك أبدا wa ahla badrin radiyallahu ta'ala anhum rufqatan abadan wal mu'minina wal mu'minati ikhwatan abadan fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakatan taj'alu biha qasidati hadhihi min ahabbi shukri ilayka ya badi'u amiin yaa rabbal aalamiin. mu ne nam ko waxee woon rek mi ni ko ni ni. mu ne nam ko waxee woon rek dina ko fas yéene ànd ak yéen ba faw na ñëpp tàllal seen loxo loolu mooy ndigal li lépp mën na. wallahi wallahi yow te liggéey bi bisu xasida bi ñu amal ca Thiès ca pencu Mansour ren jii daaw bi ñu joxee fulkul masoon bi ci koor gi te sant liggéey bii ñu jëmal ko ci clé waroon la ko indil danoo daal di ne maanaam liggéey bi nan ko booleeg bind diwaanu Fulkul Muslimin waajale ko liggéey bi ngir ngir jébbal la ko liggéey boobu nag moo nekk nii ñu koy def dañoo woo ay bindkat ñenn ñi ci mbooloo mi lañ bokk ñeneen ñi it ñëw wàll si ci doon xam ne ay jàmbaar ñoo liggéey liggéey bii ñooñee sëñ Saliou moo leen jiite ñi doon bind fulku bii ñooñee nag mbooloo mbooloo mbooloo ñoom yi liggéey bii ñi nga xam ne ah, dañoo bokk ci biir liggéey bi bind ci biir maj moo nóoree ni ñoom it ñoo bind lii indiwaaleel la ko boole formation bi ak clé bi lii moo nekk ci clé bi ah, waaw mooy liggéey ba nga ñu santoon pour uh-huh. formation ba ñuy jàng ca Thiès it da joxoon ñu ci ndigal uh-huh. ñu nga ca ñu ñoo koy seedeel bu a baax te di sàkku nag mbàkke sa ñaan dina ñaanal it nga yàgg fi lool te ànd ko wér sant nan lool seen digal rek la ñuy mañ sa loxo bismillah mu ne sant leen yàlla bu baax sant sant leen yàlla te sa loxo. incha ci fas yéene bëgg Serigne Touba. waaw jërëjëf Mbacke yàlla ful fulkul ba ñuy jàng ca cees dañ caa jiital kuréeli xasida yi ñoo koy tijji ci bis bu ne ñu ànd koog ñoom ñu ngi sant bu baax Mbacke. ñuy sant bu baax euh, di sant euh, sëñ Touba euh, di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak kilifa yi mu àndal bokk liggéey bi yëpp tey Majmahun Nurayni fii Fawaaid Daarayni Touba Xasaayid kuréelu sëñ Touba bi moo ñëw Touba doon ziar si sëñ Mountakha ci ndigalam ñu ñëw fii. di di di di ñëw pour indil ko liggéey bi nga xamante ne moom la ñu santoon maanaam ab clé boo xamante ne dafa ne woon na ko na ko na ko kuréel bi jàngal ehm, eh, xasi ay xaside yi nga xamante ne dañ ko jukkee ci biir fulk fukkul machoon eh, liggéey boobu nag pare na eh, ñu ñëwoon tey di ko jébbal waaye liggéey bi dafa am leneen tamit luñ ci njàmbaasaale liñ ci dugalaale moom mooy fulkul machool bi nga xamante ne bind nañ ko ci bésu xasida yi nga xamante ne moom moo weesu ñu bind ko ànd ko bindkat yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk waaw tamit ñu indi laa leer ko suukaru koor bi nga xamante ne at bu nekk dañ koy indi ci turu mbooloo noo Majmahun di fii Fawaa'idi Daarayni eh, liggéey bi nag niñ ko waajalee rek comme niñ ko daan def ay murit fu ñu tasee rek dañuy dañuy dajale ba mu dajoo ñu indil ko jox ko sëriñ bi kon loolu moom mooy taxawaay bi waaw ñuy santaat bu baax sëñ bi ci ci ci boole bi ñu boole ci liggéey bi ak fësal bi mu fësal. suñu liggéey ak tamponné bi mu ko tamponné ñuy santaat bu baax si si ci taxawaay yëpp di ñaan yàlla suñu borom may ñu ko fi fekk lu bëri lu yàgg lool lool mu yàgg fi lool bi nga xamante ne lu mun na euh, fas yéene liggéeyal sëriñ bi mu matale ko jërë ngeen jëf. ñu ngi siyaar mbokk taalibe bi euh, ci bis bu tedd bi ñu teew fii ci Touba ñëw ci siyaar bu mag di ko def di siyaar Sëriñ Muntaxa yàlla dogal ñu euh, jógee. bitim réew ñëwoon ci bisu xasida yi suñu borom dogal ñu teewee ziar bi tasiteeg euh, tawféexi sëriñ bi euh, ñu ngi sant bu baax ci tudd suñu mbooloo mi di Majmahun Nurayni fii Fawaa'id Daarayni xam ne di mbooloo mu dëgg yàlla bu yàgg ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ñu yàgg lool ci taxawal bis yi euh, tawféexi sëriñ bi ba tey ñu teewee ko di ci sant sëriñ bi bu baax a baax di sant mbokki taalibe yëpp di sant waa daar ji yëpp jërë ngeen jëf barki borom Tuubaa bisimilah barki borom Tuubaa mbokki julli mbokki taalibe yi ñun waa kuréel Majmahun Nurayni fi fi waa daara Tuubaa ñoo ngi ñi ñëw ci sëñ Mouhamadou Mountakha di ko siyaar si di ñaan yàlla mu yàgg fa loolu te ànd ak wér ci barki xasida yi barki bi sëñ Saliou li mel ne sax sax sax ñaari weer rek day ñëw ci moom jàngal ko xasida mooy kuréel gi mooy kuréel mañ ma noonu waaw ñëw ñëwoon fi doon ko siyaar si indaal ko suukar koor ak xale boo xam ne mooñ ko jàngaloo ak mbooleem mbokki saali bii rek di ñëw di ko siyaar si di ñaan sëriñ bi nangu ñu suñu siyaar bi ci barke yi barke bi suñu saaliw ñaan suñu jëriñ suñu xane fa su moom yàgg ko fi loolu welu ko ci barke xasida yi barke suñu saaliw liggéey bu rëy bi muy liggéey suñu Tuubaa fee si Thiès ñaan yàlla mucc ak muccale barke xasida yi barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf سادي الأمان والمنى والفينا